bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa yi nu ñëw ak ci sunu yóbbalu màggal gi waajal màggal gi ñu du ci nafar sëriñ musaaka Ka bii di Jasaawu Shakuur bi mu def ci wolof di ci nettali yoonu géej gi noo ngi yemoon ci bi sëriñ bi ak seen ndar nee na keroog ba mu nuyoog borom ndar la ko boromam dal di wax la muy nar fasbir kama sabara ulul azmi lañu fa xaatabante bàmbaay mbër mi mu daldi jaare kër amat xuraysin ngir lam càllaloo ca ñooñ xuraysin Cheikh Bamba julli na fa ñaaru rakka ñaan fa boromam ngërëmal njool màkka keroog la taalif xasid ak asiiru ca mooma xat la xam sëriñ Bachiru keroog ba muy taalif banaa xaruuru ndawal borom ndar woo ko mbër mu muuru yat nang yaroo nga naa ko ñaanal dappel boroom ndarab gan am na moo lay àppal xanitu billaahi alal arbaabi wa bi muhammadin alal asbaab la bàmba wax yet nang ba wax ko duudu antal pareet ba mooy boroom tawxiidu keroog la bàmba ràmm duudu sekk moog yaari way juróom yi bul ko sikk sax na fa ndar sax na fa ndar weeru diggeeg aw gàmmu ba mu xëyee la dal di xëy di ràmm ñu dal di koy jalax mu jëm ndakaaru ca alxames ja noonu ya dolee waaru mel na ni ginnaaw bi mu agsee ndar ba daal di gisee ki ñu ki ni woon mooy borom ndar la ko suñ borom daal di wax ak moom moom sëriñ bi fas bir kama sabra ulul azmi daal koy ñaaxaat ni ko fas bir muñal muñalug waa ulul azmi ja ginnaaw loolu sëriñ bi foofu la jullee ñaari rakka nuñ ko xamee rek muy ñaari rakkaay yi nga xam ne ñu ngi koy màggal ba léegi ñaari rakkaay ndar yi ngir moom daa baaxoo barab bu mu njëkk a tàbbi la nga fay njëkk a def mooy jaamu yàlla loolu suñ boroom moo ko dogal ci moom sëriñ bi barab bu mu dugg la fay njëkk def mooy jaamu yàlla kon loolu rek wane na ni sëriñ amul mbindeef mu ragaloon yàlla rek la ragaloon ak fu mu mën a doon bu fa tàbbee la mu njëkk def mooy jaamu yàlla kon fu ngeen gis mu julli fa rek bu leen jàpp ne xar baax a tax wane xar baax a tax déedéet moom moo baaxoo noonu bi mu agsee am na ku ko doon wax sax naan ko am na borom ndar bu bees bu fi ne boo xam ni boo xëy na boo wax ak moom mën naa mu euh, tuuma yi ñu teg sa kaw mu mu may la dàppel maanaam ñaanal dàppel ngir moom da koo yërëmoon xëy na yërëm sëriñ bi doon ko wax naan ko am na borom ndar bu bees bu fi ne gan la xëy na boo waxee ak moom mën na laa euh, maanaam defal njëggal ndeysaan waaye sëriñ bi la mu ko tontu mooy xanitu billaahi anil arbaabi wa bi muhammadin al asbaab hmm. kon nee na sax na fa ndar weeru diggeeg aw gàmm ba mu xëyee la dal di xëy di ràmm ñu daal di koy jalax mu jëm Dakar kon mel na ne foofu la jógee daal di jëm ndakaaru wax na itam gis nga euh, keroog la taalif xasida ak asiiru kon ca ca itam la am sëñ Basiiru xasida ak asiiru taarixam mooy taarixub yoonu géej gi rek bi sëñ bi déparé rek la ko tàmbali taalif noonu ni ko suñu saaka waxee fa ndar ba muy woy ba tolloog xaruuru la ko borom ndar woolu mbër ma muuru wax na itam nit ci at moomu la am sëriñ Bachirou kon at moomu la Cheikh Mamadou Bachirou gane jamono nga xam ne sëriñ bi gisante wuñu ginnaaw bi sëñ bi jógee ci géej gi la koy doo gis fekk sëñ Bachirou am ci zaahir juróom-ñaari at yu tegal kon foofu lay daal di duggee eh, jëmee ndakaaru am yeneen yoo xam ne xew na ci diggante boobu ci ay xeeti xar baax nu yame ni foofu ba ëllëg ak jàmm ci yóbbalu màggal gi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu